di déwénal Sénégal di ñaan suñu borom nangul suñu tabaski di ñaan it yàlla def dal ak jàmm ci réew mi parce que loolu la ñëpp soxla mm-hmm, mm-hmm. kaddu yi nga xam ne euh, Serigne Moustapha yëkkati na ko mm-hmm. dañu koy ziar bu wér waaye jiital ci ziar bi sëñ Mountakha Bachir mi nga xam ne moo jiite yoonu murit ziar tey déwénal xalif général des Tidiane mm. ziar tey déwénal waa Cenaba mm. waa Ndiassane mm. Cheikh Mahi ca lew ca euh, Medina Baye ziar ñëpp xalif général des Layène fàttewuñu kenn ziar chef coutumier yi yaa ngi koy wax fu nekk dem nañu fa mm-hmm. suñu tànk bi sol nañu ko dem ci këru diine yëpp waxtaan ak ñoom ngir sensibiliser leen ci jàmm ji ñu wut ak jàmm ji ñu bëgg ci réew mi mm-hmm. jàmm jooju pour suñuy njaboot ëllëg la di wax rek ne kaddu yi nga xam ne imaam yëkkati na ko léegi waay waay góorgóorlu leen ba président Macky Sall dégg ko parce que sëñ Moustapha li mu wax yëpp da ko teg ci njiit luy jéggale ak di jëllale kon njàngat la moo xam ne njàngat moo am solo la. te te mu fàttali jàngat yonent bi sallallahu alayhi wa allah mais bi ci gën a jage ci ñun suñu dund. Mhm. mooy li mu fàttali ci Cheikhul Khadim. Mhm. damay wax ne diggante dix huit cent quatre mhm. ak mille neuf vingt sept amut lu mu dundul. waaye kat doom yëpp daf ko wéer ci jéggale naa. dafa nga gis ne. Macky Sall li ko suñu borom def ci dayo moom la war a muñe li ko jaam yu ndaw yiy def waaye boo gisee li ñu tëj ci doomu aadama ci kaso bi maa ngi fàttali léegi ne am na benn bërekat boo xam ne dafa def naka su dul noonu ñu yóbbu ko jugé ko tëj ko ñaari at ak lu topp mu gracier ko baal ko ci ñii ñu mujj ñi am ay nit ñoo xam ne dañoo wax seen xalaat ci ñi réew mi doxe parce que ànduñoo ak moom mu bàyyi leen ci kaso bi ëpp na juróom benn weer kon nañu bàyyi xel ne doole ji ko suñu borom jox du pour mu dóore ko askan wi na ci bàyyi xel bu baax a baax te loolu ñëw na ci xutba bi beneen bi nga xam ne xutba bi indiwu ko te mu bàyyi ñu bàyyi ci xel ñun senegal mooy euh, kilifa ak kaddu mhm. maa ngi koy fàttali léegi ne leen 1886 Euh, ci deqale bi Lat Joor di dem di xeexi hmm. dafa ñëw ci sëñ bu mag bi mu ñaanal ko ne ko toogal ma defal la lu gën la ngay wuti hmm. Lat Joor ne ko taggoo naa ba noppi waxtaan naa ak sumay nit kon suma kàddu raw na ma bi mu yéegee ci fas wi dem Cheikhul Khadim daal di yëkkati kàddu ne ku bëgg gis gor guy dund mi ngi nee di dem xanaa kon sëñ bi xamoon na ne ko day dem hmm. ndax kàddu gi waaw moom mu war a dem ndax kàddu parce que sëñ bi bu nee gor mu ngi nii di dem mooy ne xam na ne kii bu demee du dellu si kon kon kon ñu jàpp ne euh, kàddu dafa am solo ci doomu aadama ñàkk war ma kaddu googu ñàkk téye kàddu googu tey moo ñu indi ci situation bii ñu nekk am président buy dal ci kaw ay nit am président bu nanguwul sàmmonte kàddoom am président boo xam ne jafe-jafe yi réew mi yitteelu ko tey ku nekk biir na leen ne yéen ñi taxaw ku ci nekk li mu tabaskee ren metti na lool boo ko natteeg la nga daan tabaskee alors loolu ci ndodd kenn dong la reposer muy le président de la République. alors alors euh, ku ñu mel ne son excellence euh, président kii euh, Ousmane Sonko. Mm. ñu gis la xew këram. Mm-hmm. ba ñenn ñi njort naan tabaski naag tabaski jiwul. ba mm-hmm. dara leelu ci. Mm-hmm. ñu ngi ko baare xañ ko lu ci bëri ci yoo xam ne ay droit am na. mais amul commentaire yéen ñii lay daw rek pour ngeen bañ ko poser question ci troisième mandat yéen ñii rek lay daw journaliste yi la Macky Sall di daw nee naa leen je l'ai dit et je le redis Macky Sall nit la koo xam ne ay kàddoom jarul dóor sa doom et c'est ça la réalité euh, du ma wax danaa wax du ma ni oui du ne du ma ne non ba si yàgg mu ne bu ñu tabaske ba noppi danaa leen wax li ma xalaat yow mii booy jàkkaarloog sa soxna dindil Macky Sall rek teg fa góor gu war a takk ñaareel soxlaam soxnaam ne ko da ngay takk soxnaam doo takk soxna waaw bu ne bu ñu weesoo tabaski laa lay wax sama xalaat ci loolu mooy yàq na tabaski ndaw si. <laughs> Ah, et foofu lañ toll parce que xam na ne li muy wax nit ñi d'accorduñ ci. bu ngeen dégloo dafa ne je l'expliquerai et je l'assumerai li ngay assumer mooy lu nit ñi d'accord kon xaayaan ku dégg séeréer ñun kay ñoo bëgg wax ju ñu summi rek. waaye moom wax nañu. li mu nar a def leneen lan ci buntu kër Ousmane xam naa mais li li li xew buntu kër Ousmane Sonko ñëpp méttitu nañu ko. tey jii ñun ñëpp julli nañu. mais moom mënul julli ji ña nekk ci koñam am nañu ay jafe-jafe waa këram am nañu ay jafe-jafe parce que tout simplement benn nit moo jël décision ne tey jii dana. teg lu metti benn doomu aadama boo xam ne àndul ak moom xalaat sama waxu démb nag mooy suma waxi tey nërmeel Ousmane Sonko fexeel Bougane du tax lii sénégalais yi nekk ñu jóg ci Macky Sall bu yóbbu woon saaku ceeb 1000 francs sénégalais yi pare nañ ci moom parce que jikko yi mu yàq moo ëpp la mu leen war a mën a defaral ñu ngi leen di sant bu baax